bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp campagne électorale bi ak élection bi ñu dëgmal la yéenekaay yi yitte wooti ci àjjum ak tey ji ñaar fukki fan ñaar weeru mars atum 2024 l'observateur ne candidat yay campagne daanaka seen daagu gu mujj la ñuy def si ndax ci bésub tey bi yéenekaay baa ngi fàttali ni ci la campagne électorale bi tëj Anta Babacar Ngom tëje xupp yóbbu jamaay ci kanamu yoon jomaay mooma yéenekaay bi ne baykat yi ci boppam la bëgg a delloo seenu mbégte suqali leen suqali seen liggéey Aly Ngouille Ndiaye it l'observateur ne ma nga ca mbay ma ndax Casamance la ni moom la bëgg a def gërëñee agricole bu Sénégal Sénégal gi nag Idrissa Seck moom jàpp na ni gañe na ko ba pare kàddu la mu yëkkati ca l'observateur yii wi sekk it waxtaan wu yaatoog Mame Boye Diao miy def bilangub campagne électorale bi booba jamono professeur Daouda Ndiaye ca boobale yéene kaay di fësal fukki ponk yi gën a fës ci programme am Serigne Mboup moom point actu ne mi ngi tënk programme am ci administration bu dëgër waaye it coppite yu am solo ñeel daara yi Khalifa Sall ca l'info naan man moom noppi naa ngir yenu coppite gi askan wi xaar je suis prêt à incarner le changement ba woon wax ca xëtu yéene booba mu waxati it ci xët gu njëkku la réveil moom xalifa sàll ne du candidat wu revanche du candidat wu it continuité coppite gi askan wi xaar xalifa ne noppi na koo indi ci réew mi waral muy woo socialiste ak progressiste ak libéraux ak démocrate ñépp ànd ak moom kàdduy maître Moussa Bokar Thiam yëkkati woon te ñu bari wone seenu ñàkk ànd ba ci ay farandoowam Aminata Touré moom lay ŋàññi ca la réveil yekk fa lu mel ni xamee ministre bi ñu dénk wàllu communication ne ko vous êtes un homme politique irresponsable Aminata Touré ñaawloo noonu xupp gi maître Moussa Bokar Thiam xuppoon wolof ci bu ñu

la yëkkatee kàddu ne jubluwaayam ak mbébétam ak bëgg-bëggam du lenn du dul tëgg élection yu leer nañ yu amut genn werante ci la Soleil Mouhamadou Mactar Cissé diggé lu leer nañ ne élection bii ñu dëkmal dimanche la cay tukkee résultat lay doon boo xam ne kenn du am loo cay teg ndax na muy leeree élection bu mucc ayib ministre de l'intérieur ne moom la ñu nar am buñ wotee dimanche ba noppi moom Mouhamadou Mactar Cissé Vox Populi ne la ko yëkkati woon mooy xooli matériel électoral ba maanaam jumtukaay yi nu yittewoo ngir watuk dimanche gi jaar yoon ba xam yegg na fa mu war a dem yépp Mouhamadou Mactar Cissé journal bi bi ne li mu jublu ci lii mooy élection bu dal élection bu leer waaye itam élection bu kenn dul mën a dingat loola la église biy sàkku ca booba lépp yéenekaay jàngu baa ngay ñaan élection yoo xam ne jàmm képp tey mujj aw ay bañ caa juddu ndax ña ngay fàttali ñoom waa église ba ne amul benn élection bu jar ñuy fitnaal kenn ku mu mën a doon ci askan wi ndax dangaa am foo féete Amadou Ba ca booba lépp yéenekaay di woo parti démocratique sénégalais ñu féeteeg moom ci ab pacte républicain bu ñu leen tegal ma ma Mamadou Lamine Thiam di wedd ca booba jamono ne am nay fédération mbaa député yu dem fekk ji Amadou Ba ndax neenu ba tey ña ngay wéy di déglu seenu njiit Abdoulaye Wade loola it la Mamadou Lamine Thiam ak député PDS ya wax ca laas yéenekaay wiy fësal taxawaayu Anta Babacar Ngom gim tuddee grande offensive Anta a taxawal jigéen ñi ci élection présidentielle bi ci gëti Walf Quotidien yéenekaay ba it ma ngay fësal ay tuyoy Déthié Fall di la mu dig waa Mbàkkeek Tuuba ci wàllu assainissement bu nu ko dénkee réew mi Amadou Ba mi bëgg ñu dénk ko réew mi ca bés bi la jour ma ngay xamle ni moom ak Karim Wade mën nañoo def alliance alal ju bari ja ñu koy tuddalit moom Amadou Ba indi cay leeral inspecteur am nañu lu ëpp li ma am ba muy wax ca jomaay fay nag nee tànn kook tànn basiru jomaay fay mooy tànn responsabilité ak irresponsabilité jomaay mooma ànd na ak Ousmane Sonko foqati fuuta yoor yoor baa ni gisee journal bi dellu siwaat ca campagne yu njiital Pastef Ousmane Sonko diggante Podor ak Richard Toll jomaay booba jamono yéene kaay bi ne ma nga urosoo gi réew mi quotidien dañu yëgal ca waxtu woowa ne Habib Sy mi bëggoon a wàcc a Diomaye Faye conseil constitutionnel daf koo gàntal Les Échos ne waxuma la gàntal waaye dañ leen a wàññi ndax courrier yéen yóbbu woon kenn nanguwu koo jël sax ca conseil constitutionnel greffier bu conseil constitutionnel ba daf leen a jox rendez-vous ñaar fukki fan ak juróom-ñeenti weeru mars Les Échos ne leneen lu ca am mooy gendarmerie ca boppam lañu woo renfort ngir ñu dàq seen mandataire yeen yabaloon ca conseil constitutionnel tribune ne Cheikh Tidiane ak Habib Sy bu nu rocceekoo ci élection ko benn milliardu askan weey yàqu l'informateur ne moo taxit lankal nañ leen moom it ma ngay sàkku ndimbalul parti démocratique sénégalais ngir am ko nag anta maître Abdoulaye Wade ca boppam la bindu bataaxal l'indépendant ne booba jamono Moustapha Ba jëwriñ ji ñu dénk wàllu koom ak koppar xaatim na chartu secteur privé bi ci turu Amadou Ba ay engagement la yu nu jël ne bu nu faloo daanu ko doxal ak secteur privé bi yor yor wi ca woole waxtu di wax ci beneen charte bu ñu tegal candidat yi mu di pacte bu sukkandiku ca assise candidat yu baree bari nag réew mi quotidien gis na ndakaaru lanu joxante tey dig daje ñoom ñëpp fi lanu fas yéene jeexalee seenu campagne ci àjjuma ko fee ne fi ne kay candidat ak ña leen di jàppale lu nu xam ña koy wax lu nu mën ña koy def jubluwaay ba di fexee ñod ñu gën bari ci askan ca seen wet ngir am ndam ca ngoonu fanuk ñaar fukki fan ñeent weeru mars le témoin di artu ca la xewoon daloon Abdoulaye Wade yéene kaay ba ne ñenn ca responsable ya àndoon ak moom ba ñu yëgee ne lay xeeñ neexut ca la jël lañ waroon a def ca campagne ba muy fond de campagne yi ne ca déej toog loola waral vote sanction yu bari yu leen ñàkkaloo élection yi ca atum 2012 la bëggoon doon ci élection yi moom Mamadou Yatassay mi génn àdduna démb yéene kaay yépp daanaka xëy muy génnuk àdduna Mamadou Yatassay libération di ñu yëgal booba jamono ne Mouhamed Rasoul Ndiaye ak Assane Lo ñu tëjoon ngir faat bakkan guñ leen tuumaaloon ginnaaw gi ñu génne leen kaso ne leen defu leen dara ñu yóbbuwoon nguur gu Sénégal ca kanam cour de justice bu CEDEAO am nañu dëgg yéene cabinet état bu Sénégal mooma daan nañu ko ca Abuja mu war a fay ñaari commerçant yooye téeméeri million ci xaalisu CFA ëttu attekaay ba it bi taxawal commission d'indemnisation ñaar ñooña journal bi ne tëdd nañu 2019 ni leen defu leen dara décembre 2011 la ñu leen tëjoon kaso ngir tuumay faat bakkan yéene kaay ba ne waaye ca cëppaandaw la àttekat ya dañoo gis ne defuñu dara sunu gayndey nag li ñu def tey mooy daan waa Gabon ngir am départ bu bees stade moo ni gisee yëgaleenu noonu jongante war a dox seen diggante bu 19h30 jotee bombardier mi retraitam ci làmb ji jot nag sunu làmb gis na ne yéene ba mu amoon du ko mën a yeggali yéene bi yéene kaay bi ne moo doonoon retraité ba nu piwéy di doon buuru làmb ji waaye fi mu ne sunu làmb ne sore na ko lool te combat wam yu mujj la nekk di jongante wii wi du ko may ndax am na ñeen fukki at ak juróom-ñaar kon mag dikk na ci bombar jee ca loola la ñuy jeexale ñun tey ñaanal leen kenn la jàmm dig daje ëllëg incha allah